وجاتك اليوم يا رمان منتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برحمتي ألا ألاقي الدر منك يا الله عسى ملاسي أرجو برحمتي الله لا يضر أن منك يا الله مليك يميني وعقل بزول يا مليك بعائسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سربيا يا قدوس متليا علي وعن كرادي تدار يا الله أنت سلام ياسي سلمت كل يوم ويوبنا سبيتي إن منك يا الله أنت سلام ياسي فلم تكن لي من ويا بنفسي بطيء منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وعاملي الأمن في الدارين يا الله ànd ak njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp ci turu Serigne Cheikh Fall moom sëñ Mor Moussa Fall ñu gën koo xam Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng moo fi ñëw tey jii bàyyi ko ci Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda mi fi toog a jotaayu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ñaan yàlla sunu borom saa borom yokk aw fanam ci dolli ak wéram waaye ak mboolem njabootu Cheikh Rafal gi kaddu yi mu jox sëñ Saliou nag mu bëgg ko yëkkati ba ñëpp dégg ko ñu may ko ak dégloo. sëñ bi nee na asalaamaaleykum nee mi nuyu bokki taalibe yëpp. nee ñi ngi jiital nuyoo bi ci Cheikh Moustapha moom sëñ Baara moom sëriñ Falilou nee di ko nuyu waaye di nuyu nag ñin fi fekk ñëpp ten sant Mbàkke tey bokki boppam di nuyu taalibe yi nga xam ni ak bëgg sëriñ bi rek moo fi indi sëñ baa ngi nuyu ñëpp Mbàkke sëriñ Seex Njaaye di jëwriñu sëriñ Amdi Faal moom sëñ Moodu Mbenda moom mi fi nekkal maam Seex Ibra nee na moo si ci yow boole leen ak njaboot gii sëriñ Asan Faal ngi nii ak sëriñ Waseenu ak sëriñ Seex Asu ak sëriñ Falilu Faal xalifab sëñ Moodu Aminta Faal ak Serigne Moustapha Fall Falilou ak doom yëpp nee na ñëpp ñëw nañ nee na délégation bu am solo moom la Serigne bi def ci yow nee nag ndax xam fi mu jëm si ndax nee na moom kat waajuram wa ak sa benn lan woon nee ku ko fekkalul am na loo ci dégg ci diggante Serigne Fallou ak Serigne Modou Moustapha nee loolee nag. moo tax lii mu mel mu mel nii nee na lay siyaare ak njabootu Serigne Modou Moustapha gépp nee di ñaan sunu borom dool la fee gën a yàggal nga yàgg taxaw bisub Serigne Bara Mbacke bii ndax yow kat sa waajur wa yoon wépp a ko xam ci bëgg gum bëggoon murit yi ak taxawu gum leen taxawu. xanaa li nu ci metti rek mooy lim fi toogul ci jataay bi lu yàgg nee waaye loolu nag jëfi borom la nee ku liggéey ba matal faawu nga wàcc ndax ay waajuram la fekki ndax maama ma nga fa ak waajuram wa sëriñ Fallilu Mbàkke kon nag sëriñ bi nee nga dolli koo ñaanal moo njabootu Seex Rafaal gii ban mën ne la Mbàkke nee jenn yitte rek lan am amuñu genn bëgg lu dul jëfe seen ndigal ngeen di leen digal ñu di ko jëfe nee ko nag Mbàkke nee na mbooloo ngi nii ci sa kanam kenn xeebu la ndax xam na nag ki nga doon xam na nit fi nga bàyyi ko boo ñaanee dana am kon ñaanal ko mu dëgër ñi topp ci ginnaawam dëgër ban mën laa liggéeyal jërëjëf Mbàkke loolu la sëriñ bi waxoon ni nan la ko jottali bu ñëwee jërëjëf Mbàkke nee na njaboot gépp a ngi ne sa kanam nga ñaanal leen ci sa barke maam jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke ah sëriñ bi sëñ mu nee na mi ngi leen di nuyu nee na mi ngi leen di siyaare nee na mi ngi leen di delloo ay kàddi cant léegi la ma déey ne ma dama bëgg nga waxal ma njabootu Cheikh Ibra gii ne leen ci ñoom laa bokk loolu la ma wax dama bëgg nga waxal ma njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gii ne leen ci ñoom laa bokk waxal ma itam loo mën a wax ci pas na ci ñoom lañ koy yoroyee loolu la ma sëñ Moustapha Dieye kon Fall sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bi ngeen di ñëw ngeen fi fekk rakam muy ma du Mbacke moom sëriñ Modou Boussa Dieng moom Cheikh Mamadou Fadal bu ñëwee toog njabootu Cheikh Ibra ñëw toog nit xam histoire ci ginnaaw dana xam ne lu jaadu la. ndax Cheikh Mamadou Fadel mii maamam bi ma noppee ci jumaa ji daa xool la ca gën a sémbali mu ne Cheikh Ibra Fall ngi nii loolu mooy yoonu murit yoon wii su dee dëkk yoon waaye Cheikh Ibra foofa la ñuy jaar ngir dem ca kon siyaar bii ngeen ko siyaare si nee na xolam sedd na pas-pas bi ngeen am ci Cheikh Mamadou Mountakha am ko ci njabootu sëñ Touba ak jëf ju rëy ji ngeen di jëf ak kaddu yi ngeen ko néewale nee na yàlla leen ko sëñ Fallou Faye sëñam di Modou Mbenda mii fi nekk nee na mi ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér ndax moom waay juróom Cheikh lamin dafa bëggoon Cheikh Ibra ci xolam ndax xam na ni sëñ Fallu meloon ci maam Cheikh Ibrahima Fall waaye moom miit Fall ngeen ñaanal ko mu yàgg fi ndax yitteem mooy taalibe yi mooy murid yi mooy bokk yi léegi laa ko wax ne ko diw mii sab taalibe mu ne ma ñun ñëpp ay mbokki taalibe lañ man aw ma taalibe ay mbokki taalibe lañ ngeen ñaanal ko mu yàgg fi loolu te wér Fall yéen yàlla na ngeen fi yàgg loolu te wér ndax saxub yoon wi ngeen te it la maam Cheikh bàyyi woon ba tey loola yéen a koy dox su ngeen fekkee sëñ Axma faaw ñu leeral lool anta albasir lasi li xaada jumlatama lixtarta dunya wa uxra minka ya allah akamta ya akam باقي بكون يا سار فوزي بما قاب من بسراك يا الله